yor bi moom euh, yor-yor bi dafa ñëw ci li nga xamante ni moom mooy euh, lànkuk li nga xamante ni nii. moom ma di respecté euh, article vingt sept bu constitution bi ci la xëy moom yor-yor bi mu ni Macky entre subterfuge et dilatoire moom ñëwaat na ci moom mi nga xamante ni moom moo di yor-yor bi ni Macky ci diggante li nga xamante ni moom mooy lànku ko jëfee article vingt sept bu constitution bi moom ci la daal di xëy ñëw tey ñëw na itam ci li nga xamante ni nii. moom moo di euh, projet loi d'amnistie ñi nga xam te ñoom ñooy njabootu ñi ci euh, victimes yi ak société civile bi ñoom euh, ak ñi nga xam te ni moom mooy politique yi ñoom nee nañ déet li nga xam te ni moom moo di loi boobu daal du jàll moom ñaan na ci moom mi nga xamante ni moom moo di yéen kaay bi ñu ne itam ci Ami Dia ak ki nga xamante ni moom mooy Babacar Ndiaye ñoom am nañ li nga xamante ni moom moo di ak liberté maanaam bàyyi nañ ñenn ñu ñibbi ci seeni kër. tribune quotidien la ñuy daal di dem moom ñëw na itam ci lu projet de loi amnistie mu ni quelle honte maanaam ab gàccee la moom loo ko jàppee moom tribune quotidien vers une impunité pour les politiciens maanaam dañoo jëm ci li nga xamante ni nii moom mooy euh, politiciens yi lu leen neex def te dara du leen ci fekk moom mooy impunité Macky euh, moom euh, xëy mu xëy samp laaj ni kii di président de la république ndax day seet li nga xamante ni nii wala day jéem a daw li nga xamante ni moom mooy wala day jéem a aar ñii sax ñii di ay jegeñaaleem yoo xam te ne dugg na tudd nañ leen ci wàllum recrutement ay nervi ak yu mel moom ñaan na ci moom tribune quotidien mu ni loi bi nag euh, c'est contraire euh, à la morale aux lois de l'humanité mu ñu sukkandikoo ci docteur Mbaye Cissé mu ni loi bi daal day euh, maanaam xel xel mu sell daal di koy nekku ak lu mu àndal waaye tamit ak nit itam ànduwut ak loolu moom ñu ànd ci moom tribune quotidien mu ni nangu ko maanaam adoption bi dina jokk bu baax a baax a baax li nga xamante ne nii moom mooy lu nekk lu troublante ci wàllum impunité <coughs> moom ñoo na ci moom mi nga xamante ni nii moom moo di yëglekaay bi bu sukkandikoo ci Amnesty International ñoo ne itam ci fukki fan ak wala juróom-ñetti fan moom moo des gannaaw ba wala juróom-ñetti fan gannaaw ba ñëw defee li nga xamante ne moom moo di waxtaani kii di président Macky Sall jot na rapport bi nga xamante ne nii rapport dialogue am de son dialogue il a dit moom tribune quotidien ñoo na itam ci nouvelle euh, loi contre la corruption le président de l'OFNAC devient une super procureur mu ni président d'OFNAC bi nag jamono ji mi ngi nekk ab euh, super euh, procureur moom ñaan na ci moom mi nga xamante ne nii moom moo di tribune quotidien lii quotidien la ñuy daal di dem moom euh, li quotidien dafa ñëw ci loi d'amnistie bi tam mu ni le projet très controversé de Macky Sall projet la boo xam te ni jur na coow lu bëree bëri moom euh, président Macky Sall daal koy teg ci kaw taabal ji moom lii quotidien ci la daal di ñëw tey mu ni amnistier les infractions commises temps au Sénégal qu'à l'étranger et couvrant euh, la période de février 2021 à fév à 2024 l'amnistie ne préjudice pas au droits des tiers moom ñëwaat na ci moom mi nga xam ni moom moo di li quotidien ci boobu les lois d'amnistie ak li nga xam te moom mooy li ñu def li ñu def waaye fii ci réewum Sénégal waaye itam ca li nga xam te ni moom moo di biti réew loolu la daal di concerné ci benn fan ci weeru février atum 2021 ba ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février bi ñu génn atum 2024 lépp lu fi waaye defoon méngoog ci wàllum politique eh, mu nekk crime wala sax mu nekk li nga xam te ni moom moo di délit maanaam loi ba buñ ko daal di adopté day faase loolu yëpp moom ñaan na ci moom mii di lii quotidien mu ni li nga xam te moom mooy contestation yi eh, jëmee ci li nga xam te ne moom mooy application euh, boobu pré euh, loi nekk na loo xamante ne nii chambre d'accusation bi ak euh, wala kii di chambre d'accusation ak cour d'appel ñoom bu Dakar ñoom ñoo ko mën a juger moom ñaan na ci moom mii di lii quotidien ñu wëyal ak direct news moom dafa ñëw ci beneen mbir muy mbirum Air Sénégal ak li nga xam te ne moom moo fay am ci ay jafe-jafe ak ay retard yoo xam te ne dañ koy nemmeeku wala sax annulation li nga xam te moom moo di euh, ay vol euh, yoo xam te ni da ci am mu xëy samp blaaj mu ni faut-il euh, brûler Air Sénégal ba xam Air Sénégal moom daanaka dañ ko war a taal wala jëlee ko fi benn yoon moom ñaar na ci moom mi di direct news Air Sénégal nag honoré wul li nga xam te ni moom moo di drapeau Sénégal waaye tamit da koy teg sax gàcce muy nekk biir boobaak léegi ñetti fan a ngi nii Euh, mënul yóbbu benn client fa nga xam te ni moom ma di jëlee ko Ndakaaru yóbbu ko fële ca Paris ak lu toll ci ñeenti téeméer ci ñoo xam te ni dañoo waroon jël lii di avion bi wala compagnie bi daan nañ am ay jafe te mënuñoo jàkkaarloo kenn wax ko li nga xam ni nii moom ma di seen ay jafe te bii njëkkul euh, li nga xam te moom mooy situation yi di am moom ñëwaat na ci mu ni compagnie bi di Air Sénégal nag dafa nekk loo xam te ni euh, dañ koy dañ ciy dugal ay milliards yu bari waaye amul benn njariñ boo xamante ni ni nemmeeku nañ ko ca ñëwaat na ci itam mu ni ana li nga xam te ne moom mooy avion yi nga xam te ni Air Sénégal jëndoon na ko waaye inauguré ko ci inauguration boo xam te ni lañ ca def itam euh, bari woon na lool moom mi euh, direct news ci la daal di xëy ñëw tey mu ne Air Sénégal dafa tànn ab voyage boo xamante ni nii fële ca Màkka la waaye itam ñi nga xamante ni nii euh, moom mooy moom nañ tànn pour mu yóbbu ñi di fële ca euh, màkk waaye ñi nga xamante ni moom mooy euh, ña war a dem est-ce que dinañ dem xëy na samp kopp euh, laaj moom ñi nga xamante ni sax moom mooy même avion yi maanaam avion yi daw ci biir dëkk bi maanaam jóge par exemple Sénégal wala jógee par exemple Dakar dem fa la nga xam te ne moom moo di ca Saint-Louis sax euh, ñoom Air Sénégal mënuñu ko assurer kii di Transair moom moo koy daal di def moom ñaar na ci moom mi di euh, direct news libération yéenekaay la ñuy daal di dem moom itam néew nañ ci liggéey yi nga xamante ni doon nañ ko amal ngir defaraat lycée Seydina Limamou Laye bu Guédiawaye mu ni onze milliards de francs CFA engagés dans l'opacité totale lu toll ci fukk euh, benn ci milliards ci suñu koppar moom lañ cay dug moom lañ ci dugal waaye ci ji ak lëndëm gu mbaree bari moo ca nekk naka la cour suprême nag daal di joxe li nga xam te ni moom moo di euh, kii di Euh, cause bi ak procédure bi gannaaw ba mu saytoo li ba mu seetloo li nga xam te ne moom mooy ministère bi yor formation professionnelle apprentissage ak li nga xam te ne moom moo di daal di wul tënkoo ak li nga xam ne moom mooy principe de transparence dans ce dossier maanaam euh, daal di leeral mbir mi fuñ ci toll rek euh, gannaaw ba ko cour suprême daal di nemmee ko ñëwaat na itam ci moins cher de deux milliards et proposé comme attribut attributaire du marché donc moom ñëwaat na ci nga xam te ne moo Euh, gannaaw ba ñu defee ay déploiement entreprise bi di ex bat bi ñu defee appel d'offre bi maanaam ci marché bi. waaw entreprise bi di Exbat. waaw moom daanaka moo gënoon a moins cher le de deux milliards. waaw terewul. terewul joxuñu ko marché bi joxuñu ko marché bi. mu nekk ci procédure la boo xam te ni c'est frauduleux maanaam euh, ay njuuj njaaj daal lañ ca daal di nemmeeku mu gannaaw itam ba ñu seetloo li nga xamante ni ni moom mooy procédure bu yees te ko cavalière. marché bi nga xamante ne nii euh, ñu ngi ko daal di jox euh, koo xamante ne nii euh, ci fukki milliards ak benn lañ ko daal di joxe ma ngay mooy entreprise bi di Kéliman entreprise Sarl donc moom ñëwaat na ci ak li nga xamante ne nii moom dañ koo invité sax ci même temps fële nga xamante ni moom mooy ca Kunta Fall entreprise waaw ñëwaat na ci itam ci Jamatek SA ak ki nga xamante ni moom mooy Exbat Sarl n'avait même pas déposé une offre ñoom déposé wuñu son sax déposé wuñ ñu woon sax offre mu nekk lu doy waar ah, fukki milliards ak benn ngir defaraat li nga xamante ni moom moo di euh, mu defaraat li nga xamante ni moom moo di lycée Limamou Laye ca Géejawaay waaye euh, mu comparé daal bëri na lool te ba léegi amul benn am loo xamante ni nemmeeku nañ ko ca euh, maanaam affaire bi daal c'est nébuleux maanaam lëndëm na lool. moom ñor na ci moom mii di libération yi naka ñun itam ci bàyyiku ki nga xamante ni nii moom moo di euh, Ami euh, Dia moom nag ci jamono ji mu ngi ci contrôle judiciaire ñun itam ci loi d'amnistie bi assemblée nationale bi nga xamante ni saisir nañ ko en procédure euh, d'urgence gannaaw ba nga xamante ni ni euh, conférence des présidents yi euh, daje nañ mu ni commission bi nga xamante ni mooy commission loi yi nag dinañ daje tey ci euh, talaata ji kii di Thierno Alassane Sall ak Inokwa Jàppo ñoom ña ngay crier li nga xamante ne moom moo di ab scandale moom itam président de la république ma ngay insister ci li nga xamante ni nii moom mooy nécessité maanaam amal élection yi maanaam bi ñuy fësal li nga xam te ne moom moo di décret bi ak li nga xam te moom mooy datub élection yi euh, lii di euh, code électoral bi dafa war a wax dafa wax ni war naa toll ci diggan digganteb euh, juróom-ñetti fukki fan maanaam quatre-vingts jours ñaari weer ak fanweeri fan moom ñëwaat na ci moom mii di libération yéenekaay L'As Quotidien moom itam dafa ñëw ci li nga xam te ne moom moo di loi si bi mu les cinq articles clés de la décrispation mooy li nga xam te ne moom mooy article ñu ci def euh, euh, ngir daal di dalal li nga xam te moom mooy réew mi andiwaat jàmm ci biir euh, nit ñi andiwaat itam li nga xam te moom mooy ak juboo moom ñëw ni ci moom mi laas quotidien ci article yi loi d'amnistie bi nag mi ngi jàpp fee yi nga xam ne mi ngi am ci février deux mille vingt ba deux mille vingt quatre moom mi nga xamante ne ni moom mooy di laas quotidien l'info yéenekaay moom itam dafa ñëw ci tànn ko datu ko ñaari fan ci weeru juin. Euh, ngir jàpp amal ci li nga xamante ni moom moo di élection mu ni le beau prétexte des événements religieux mu ni li nga xamante ni moom mooy li ñu bëgg a langaamu nag moom mooy li nga xamante ni moom mooy euh, xew-xewi diine yi nga xam ni nii euh, ñu ngi ko dëgmal lu ci mel ni Pâques lu ci mel ni Korité lu ci mel ni sax Dakar. moom ñu ànd ci moom mi nga xamante ni nii moom moo di euh, l'info yéenekaay mu ni euh, euh, lu toll fukki date yoo xamante ni nii pro wala fukk ñaari date yoo xamante ni proposé nañ ko ci li nga xamante ni moom moo di plénière wu commission bi donc même ñaari fan ci weeru ab février deux mille vingt cinq soit plus d'un an après la dat initiale moom ñëwaat na ci datu ñaari fan nag euh, la ñu daal di proposé ak juróom-benn ci nga xam ne moom mooy ay reprise pro euh, proposition enregistrée non loolu nag nekk na loo xamante ne nii moom ñëwaat na ci bu baax a baax moom mi di l'info yéenekaay gannaaw ba mu jàngatee li nga xam te ni moom moo di rapport ba tukkee ca boobu boobule dialogue ñu doon amal ca Diamniadio Sud Quotidien moom dafa ñëw ci li nga xamante ni moom mooy di projet de dam nessi bi mu ni l'assemblée mise en branle maanaam assemblée bi nag euh, ci instant yi ci jamono ji saisir nañ ko mbir ya moom moo ca war a daal liggéey moom ñaan na ci euh, effet yi nga xamante ne ni dañ ko amnistie mooy yi nga xamante ne ni mi ngi euh, jëm ci wàllum wala euh, mi ngi revêtir qualification boo xamante ne ni moom mooy infraction criminelle wala sax correctionnelle yoo xamante ni amal nañ ko benn fan ci weeru février 2021 jàpp ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février 2024 fii ci réew mi waaye sax ca biti réew euh, yoo xamante ni dafa laale ak ay euh, manifestation ak li nga xamante ni wala sax wàllum politique moom moo ca dugg ak li nga xamante ni moom mooy ay euh, fee yoo xamante ni nii euh, jaare nañ ko ci bépp support de communication ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy auteurs yi euh, ñu jugé leen wala ñu bañ leen a moom ñaan na ci moom mi di Sud Quotidien Vox Populi la ñuy daal di dem moom itam ñëwaat na ci li nga ni nii moom mooy contre les faits yi nga xamante ni moom mooy faits criminels yi ak correctionnels yi nga xamante ni amal nañ ko ci février 2021 ak février 2024 Macky met en branle son projet de loi d'amnistie Macky moom ma ngay doxal li nga xam te ne moom ma di projet loi d'amnistie ba détails yi nga xam te ne exposé nañ ko ak motif yi continue li nga xam te ne moom ma di projet de loi bi bi nga xam te ne aussi moom mooy jëm ci li nga xamante ni nii moom moo di euh, li fi jotoon xew moom ñu ànd ci bu baax moom mi di Vox Populi ñu itam ci détails yi nga xamante ni rapport euh, final bu travail li nga xamante ni moom mooy dialogue ba jur moom ñëwaat na ci euh, gannaaw bu ko joxee président de la république moom mi nga xamante ni nii proposé nañ ko datub ñaari fan ci weeru juin ngir ñu amal li nga xamante ni moom moo di élection yi waaye yeneen date itam proposé nañ ko ko mu nekk ñaari fan ci weeru avril wala euh, mu nekk ñaar fan ci weer mooy fukki fan ci weeru mars bi ñu nekk waaye tamit euh, ñaar fukki fan ak juróom ci weeru avril ak li nga xam te ne moom mooy juróomi fan ci weeru mai fukki fan ak juróom ci weeru mai ak euh, fukki ñaar fukki fan ak juróom ci weeru mai ak li nga xam te moom mooy fukki fan ak juróom ci weeru août wala sax njeexitalu fin novembre décembre ak même li nga xam te ne moom moo di 2 février 2025 maanaam gannaaw. maanaam euh, ay dates yu bari daal lañ daal di proposé nga xam te ne moom di président de la république tàmbale ko ci meeru meeru marché bi ñu nekk ba euh, février ba nga xam te ni moom la ñuy dëgmal ci atum deux mille vingt cinq moom Vox Populi xëy na ci daal di ñëwaat Ami Dia itam profit am na xam te ne moom mooy bàyyi néggandiku waaye itam ñu teg ci ab euh, contrôle euh, judiciaire moom Vox Populi daan na ci euh, dellu si le quotidien moom itam dafa ñëw ci wàllum loi d'amnistie bi mu ni Macky dévoile son projet moom Macky wane na li nga xam te ne ni moom moo di ab projet ci li nga xam te moom moo di loi d'amnistie mu ni il couvre la période période bi nga xam te ne nag moom lay daal di jàpp mooy benn fan ci weeru février atum 2021 jàpp ñaar fukki fan ak juróom weeru février atum 2024 mu nekk loo xam daanaka euh, ñetti at moom ñu ànd ci moom mi nga xamante ni moom mooy le quotidien Sonko pour trouver son éligibilité mu ne son Sonko mën naa amandim li nga xamante ne moom mooy éligibilité am gannaaw li nga xamante ne moom moo di conférence euh, des présidents yi di commission de lois ñoom danañ daje ci li nga xamante ni moom mooy tey jii ngir euh, càmbar li nga xamante ne nii moom moo di boobule projet de loi d'amnistie source A moom dafa ñëw ci doole wa dolliwaat bu baax a baax kaaraange fële ci nga xamante ne nii moom di ca euh, université Cheikh Anta Diop euh, bu Ndakaaru gannaaw la nga xamante ni xewoon na fa ak yàq ga nga xamante ni nemmeeku nañ ko fa mu ni lu kat tamit ses étudiants. Euh, UCAD ba ma ma ngay segg li nga xamante ne moom moo di étudiant am ci jamono ji nag ak li nga xam enrôlement bi nekk na lu obligatoire maanaam loo xamante ni benn étudiant mënu koo bañ waaye tamit képp koo xam ne bëgg naa dugg ci li nga xamante ni moom moo di ca université ba. donc mu ni ñi nga xam te moom mooy kii jàng war naa am li nga xam te ne moom mooy carte d'identité nationale am ak li nga xam te ne moom mooy carte d'identité carte euh, étudiant am waaye itam li nga xam te ne moom mooy certificat d'inscription bu moom ñoo ne ci moom mi nga xam te ne moom di source enrôlement bi nag dina tax li ne moom administration bi nettoyé bu baax a baax espace universitaire bi euh, di identifier ñi nga xam te ni nii ñoom ñooy étudiants yi ak ñi nga xam te ni ñoom ñooy jaay euh, yamba ak jaaykatu fëgg jaay yeeg ak ñi nga ni moom may euh, ay taximan ah c'est ce qu'il a dit je vais lire en français. la non non man kay sama yoon nekk ci bu ko liiraat demal avancel yow pare nga looy liiraat demal. doo doo dee de. non avancel ah. ñu wéyal. réunion des com euh, des commissions de coordination de FIP pour euh, épiloguer sur le heures. entre partisans de Khalifa et le les différentes mesures ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa fi pour jël nañ ay ndogal nag ngir euh, daal di waxtaan ak ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy. ñooñu Khalifa Sall yi ak ñooñu Ousmane Sonko yi gannaaw ba ñu amee woon ab jaamaarloo ci seen euh, rassemblement bu mujj bi nga ni gannaaw nag euh, jafe-jafe yi nga xam te ni nemmeeku woon nañ ko ñoom euh, ci dugg jóge ci ñu faral Khalifa Babacar Sall ak ñi faral ki nga xamante moom mooy Ousmane Sonko ñoom daal nañu initier ay mesures yoo xamante ni nii mesure d'ordre organisationnel la de même ay médiation boo xamante ni nii daan nañ ko ci sàkku démb nag Euh, daan nañ def responsable yi nga xam te ñoo fare ci sori coordination bu fippu doon nañ jël ak contact ñi nga xam te ñoom ñooy ñaari parti yi maanaam waxtaan ak ñoom ba li xewoon dootul xewati moom ñëw na ci moom mi di source ah les échos yéen a moom dafa ñëw ci dàquk élection yi ba ñaari fan ci weeru juin ak li nga xam te ne moom mooy maintenir euh, président bi ba euh, keroog ñuy fal ki xam te ne moom moo koy wutu muy la bal dans le cas ñoom ñi nga ñoom ñooy sages yi jëbal nañ leen li nga xam te moom moo di mbir ma ñu na ci moom it di Les Échos bal bi mu ngi tànk kii di Thiendella Fall moom nag ma ngay décoté li nga xamante ni moom mooy date yi ñu retenir waaye tamit di expliquer lu tax ñu jël li nga xamante ni moom mooy di le deux juin moyen de jeune ndax moom dafa jàpp ni 2 juin daal daanaka moom moo ci xaw boo xamante ni du am ay jafe-jafe Macky moom ma ngay réitéré li nga xamante ni moom mooy di bëgg-bëggum dem ci ñaari fan ci weeru avril waaye tamit euh, des na ñi nga xamante ni moom mooy ci di déglu ki nga xamante ni moom mooy di euh, le conseil constitutionnel projet de loi d'amnistie bi aussi moom ñëw na ci moom les échos mu ni Macky lave à l'eau de javel Sonko et compagnie moom Macky sàng na bu baax a baax ci eau de javel ki nga xam te ne moom Ousmane Sonko ak ay euh, ñoñom texte bi nag examiné nañ ko ci démb ci comi dinañ ko examiner tey plutôt ci li nga xam ne moom moo di euh, commission des lois waaye tamit suba ci ab euh, plénière infraction yëpp yi nga xam ni amoon na ci jëm ci wàllum criminel wala correctionnel moom ñëwaat na ci moom mi nga xam te ni wala sax yi nga xam te def nañ ko ci réseaux sociaux yi yooyu yëpp day daal di dañ moom ñëwaat na ci moom mi di les échos yéenekaay l'observateur moom dafa ñëw ci l'amnistie le texte de tous les dangers moom dafa jàpp ne si bi texte la boo xam ne nii bu doy waar la moom ñëw na ci moom mi nga xamante ne moom moo di l'observateur on est en train d'affaiblir les normes pénales ne moom mooy bu baax a baax doole li nga xamante ne nii moom mooy norme pénale yi mu ni éclairage sur les possibles poursuites devant la CPI moom ñëwaat na euh, li nga xamante ne nii moom mooy euh, ñi ñu mën a topp ci kanam li nga xamante ne moom moo di cour pénale internationale daal di afficher li nga xamante ne nii moom mooy ay photo nit ñoo xamante ni nii ñàkk nañ seen euh, bakkan ci li nga xamante ne nii moom moo di manifestation yu fi jot a jaar moom euh, l'observateur xëy na ci ñëw lu toll ci ñaar fukk juróom-ñetti nit yoo xamante ni nii euh, xëy na daal di fësal seen ay nataal ñoo xamante ni nii ci wàllum manifestation lañ ñàkkee seen bakkan déguerpissement de bidonville ñoo na ci muy la politique des cafards contre la criminalité donc ñëwaat na ci li nga xam ni moom mooy jamono ji li xew fële ca Ndakaaru mooy jam di jënd ay li nga xam te ni moom mooy ay nit ci fi ñu nekk ndax euh, ñàkkum euh, kaaraange ñëw na itam ci wàllum pétrole ak gaz ak Antoine Diome mi nga xam te nii maanaam na niveau d'avancement bu am solo ci projet pétrolier ak euh, gazier yi moom ñëwaat na ci moom mi nga xamante ne ni moom moo di l'observateur ñu wëyal ak bés bi le jour moom daa xëy samp laaj ci wàllum projet de loi d'amnistie bi mu ni à qui profite le projet prof euh, projet bi daal kañ lay daal di profiter mu ne amnistie bu pour ñi nga xam te ne moom mooy ay euh, déchéance xam te ni lié na ci wàllum droit de vote ak nga xam ne moom moo di élection une fête de sortie euh, pour une fenêtre de sortie pour l'éligibilité de Sonko mu ni est-ce du porox ndool bu ñu mën a jaar parce que Ousmane Sonko amaat li nga xam te ne moom mooy éligibilité kii di Thierno Alassane Sall mu ni une seconde mort pour les victimes mu ne ñaareelu faatu la boo xam te ni moom mooy ñi ci jot ñàkk seen bakkan le collectif non à l'amnistie dénonce une forfaiture ñi nga xam te ne dañoo bokk ci kuréel gi wax déet ci wàllum amnistie bi ñoom nee nañ euh, li nga xam te ne nii euh, mbir mi daal forfaiture la le haut commissaire bu ONU demande la libération euh, d'éminents opposants commissaire bu ONU nag maga koy sàkku ñu ñu bàyyi ñi nga xam te ni ñoom ñooy ay éminents opposants moom ñëwaat na ci moom mi nga xam te ni moom moo di yor-yor bi Amidia libre na gannaaw fukki weer ak juróom ñeent yoo xamante ni nii nekkoon na ko ci kaso gi moom ñoo na ci moom bés bi la jour wal Walf Quotidien la ñuy daal di dem moom ñoo itam ci projet de loi d'amnistie mu ni la CPI l'autre obstacle mu ni CPI nag loolu moom euh, beneen li nga xamante ni moom ma di euh, ndëgg sërëx la mu ñaan na ci moom mi nga xamante ne nii moom ma di euh, Walf Quotidien muy le PDS dans l'embarras PDS yi jamono ji moom xamul fu muy taxawee Amnesty euh, rejette le texte Amnesty euh, moom mi nga xamante ne kuréel la guy xeex ak ak yelleefu doomu na li nga xamante ne nii moom ma di boobule texte jëm ci wàllum loi si moom ñëwaat na ci moom mi nga xamante ne nii. moom moo di Walf euh, Quotidien réew mi Quotidien moom itam dafa ñëw ci projet de loi ci wàllum amnistie mu ni Jomaay Jomaay euh, euh, éligible Sonko hors hors champ moom Jomaay euh, daanaka euh, boobu loi bi jàllee dina euh, nekk loo xamante ni dina génn ca kaso waaye tamit ki nga xamante ni moom Ousmane Sonko moom ay du ci mën dara moom ñaan na ci mu ne ndax fee yi ne ni moom lañ daal di concerné exposé ko aussi ci li nga xamante ni moom moo di motif yi moom ñaan na ci moom mi di réew mi quotidien ñeneen itam ci rapportu dialogue bi nga xamante ni jébal nañ ko président de la république moom nag nee na dina sàkku li nga xamante ni moom mooy xalaatu conseil constitutionnel ci mboobu mbir enquête quotidien la ñuy daal di dem moom ñëw na itam ci li nga xam te ne moom moo di projet de loi d'amnistie bi Macky rend Sonko son éligibilité Macky joxaan na li nga xam te ne moom mooy Sonko ak mën a bokkam ci ay euh, élection moom ñu na ci moom enquête quotidien mu texte bi nag dina jàll ci commission des lois ci assemblée nationale tey donc affaire Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang nag Euh, mu ni retour ci li nga xam te ne moom mooy euh, champ de projet bi bu loi d'amnistie bi ak li nga xam te ne moom mooy victime yi ak euh, li nga xam te moom mooy amnistie mën nañ ba léegi topp li nga xam te ne moom ñu ko def bu ñu sukkandikoo ci am Amadou Xamani Camara di docteur en droit privé ma ñëwaan na itam ci li nga xam te ne moom mooy cell gi nga xamante ne nii nemmeekoo nañ ko ci bu ex Pastef ci moomu le mbir. moom enquête euh, quotidien ñu dem ci tàggat yaram tàmbale ko record yenn kaay moom dafa ñëw ci match amicaux yi nga xam te ni Sénégal war na ko jouer ak euh, Gabon ak Bénin donc revue des troupes post CAN gannaaw ba ñu jógee fële nga xam te ni moom ma di ca CAN ba xoolaat li nga xam te moom mooy taxawaayu su gaynde yi moom ñu ànd ci moom mi nga xamante ne nii moom moo di record yenn kaay Sénégal dana daje ki nga xam te ne nii moom moo di Gabon ak ki nga xam te nii. moom ma di Bénin Gabon ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru mars après buñ ci jógee daje gi nga xamante ne moom di Bénin ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru mars ñaar la match yoo xamante ne nii yëpp fu duñ ko joué fii ci biir réew mi waaye ca biti réew ci Amiens ca France dañ koy daal di joué moom ñu ànd ci moom mi di record yéen kay ñun itam ci Ligue des champions huitième de finale retour yi ak na mi nga xamante ne nii ma nga joué saison tey euh, ci digganteem ak euh, Lazio. match retour la euh, ci li nga xam te ne moom moo di huitième de finale euh, Ligue des euh, champions yi moom ñoo na ci moom record yéen kaay ñu wéyal ak li nga xamante ni moom mooy réew mi quotidien sport plus moom dafa ñëw ci équipe nationale ak fédération bi nga xamante ne nii fësal na li nga xamante ne moom moo di programme mu gaynde yi ci weeru mars ak match yi nga xamante ne war nañ ko amal ci diggante Sénégal ak Bénin ak Sénégal ak ki nga xamante ni moom moo di Gabon ñoo itam ci PSG ak la cirque de le cirque de lui s'indiquer avec ses réponses sur Kylian Mbappé moom indiqué euh, ak euh, li nga xam te ne moom moo di digganteem ak Mbappé moom ñaan na ci moom réew mi quotidien sport plus tribune sport daa ñëw ci ñaari match yi nga xam te ne Sénégal war na ko amal ñaar fukki fan ak ñaar ak ñaar fukki fanak juróom-benn ci weeru mars. ca France lay amee mu ni les Lions affrontant le Bénin ñoom gaynde yi dañuy daje ki nga xam te ni moom moo di Bénin ak ki nga xam ni moom moo di euh, Gabon ñun itam ci euh, wàllum làmb bu ñu sukkandikoo ci promoteur bi nga xamante ne ni moom moo di euh, Baye Ndiaye Siteu entre Gris ou Ama moom Siteu ci diggante ki nga xamante ne moom moo di Gris Bordeaux ak Ama kan la ca nar a daal di tànn moom ñaan na ci moom tribune sport stade quotidien moom dafa ñëw ci Ligue des champions huitième euh, de finale retour tey ci li nga xamante ne moom may talaata ji na ci jamono ji mi ngi ci ay jafe-jafe maanaam mu ngi ci danger waaye tamit ki nga xamante ni moom moo di Paris li mu bëgg daal moom mooy confirmer gannaaw ba mu kii di Real Sociedad ci li nga xamante ni moom moo di ca ba mu ni la le psychodrame Mbappé va-t-il plomber ba am jafe-jafe yi nga xamante ni ni dox na ci diggante Mbappé ak euh, entraîneur ba da mën naa jural li nga xam xamante ni moom mooy loraange kii di Paris Saint-Germain kii di Thomas Tuchel ak ñi nga xamante ni moom mooy waa Bayern nag euh, ñoom jege nañ lool li nga xamante ni moom mooy précipice bi moom ñaan na ci moom mi di euh, Sud Quotidien ñu woyal jeexalee ko sax ak sunu làmb moom dafa ñëw ci face à face ak Sa Thiès mu ni ci jamono bi nag li ñu bëgg rek moom mooy euh, ki nga xamante ne moom mooy 5 mai daal di jot euh, gannaaw ba nga xamante ne nii amoon nañ ay jàkkaarloo bu amoon seen diggante ñoom ñi nga xamante ne nii. ñoom ñooy ñaari mbër yi kii di Eumeu Sène ak yi xam te ne nii moom moo di euh, Sa Thiès Baol production moom dina feete ñaar fukki atam ci li nga xam te ne moom moo di arène bi combat ba nag ma nga door ci diggante Moussa Ndoye ak euh, Mbaye Guy gi ñaar fukki fan ak juróom-ñett la juróom-ñaar ci weeru juillet la moom lañ koy daal di amal. moom ñu ànd ci moom mi nga xamante ne ni moom ma di yor yor lii daal moo fi gënoon fës Mansour ci yéenekaay yi mu gën ci fës lool li nga xamante ne moom moo di loi d'amnistie bi daanaka euh, yéenekaay yi ñuy euh, xëyandool yëpp ñoo ci yéey yàbbi ak li nga xamante ni ma ngi koy jur comme ay euh, jafe-jafe ku ne ñii naan ànd nañ ci ñi naan àndu ca ma ngoog